la ci sa bakkan eh, ci lu lu teguwul ci dara mais euh, bon jàpp naa ni dina évoluer au dernières nouvelle maa ngi saisir naa le président Alioune Tine reprendraat na discussion yi ak ministère de l'intérieur naa dindi Guelwaar bi ah loolu xalaatuma ko ñu nekk ci réew moo xam ni réew mu tëddee njaaxaanaay la euh, ku ne xam suñu cosaan xam gelwaar fu mu jógee xam leneen ak leneen fu mu jógee ministère de l'intérieur ne la dindil gelwaar dañu doo ko dindi ba pare bëgg a jox sa récépissé. xalaat mu koo dindi. cest à xam nga xam nga xam nga xam nga Babacar le fait que nga ni gelwaar rek am na foo féetale parti bi. <laughs> fan laa ko féetale mais gelwaar. mooy la mais mais mais yow tam xam nga ni gelwaar ñëpp xam nañ ko. mooy la non dama ni Babacar le fait nga ni gelwaar laa la wax. rek am na foo féetale parti bi suñu charte réew daf nanguwul loolu du ci wàllu diine du ci wàllu xeet du ci wàllu dara. mais Gelwaar du affaire xeet Pape Gelwaar am na chez les am na chez les am na chez les Séeréer am na chez Wolof am na chez les Halpulaar bi ñuy wax ay valeur la mooy Gelwaar bi nga xamante ni moom ngay gis ci filmu Sembène Ousmane ci taxawaay ci bañ nooteel juróomi baaraam yi ñuy tàllal. yalwaan la benn baaraam bu ñu tàllal ab joxoñ la valeur yooyu nga xam pour moomaat suñu bopp taxaw ci in lutte xeex injustice ñun lool boobu gelawaar pourquoi pas nga wax bañ le mu bañ non man gelawaar laa choisir ah d'accord mais mais comme yaa ko choisir nag nga nga assumer ko euh, Pape parce que nga assumer ko aussi akama ñi may assumer déglu lan mooy récépissé benn kayit bu ñu def ci poste y a plus de trois cents récépissés dans ce parti moi je veux construire un parti politique pas un récépissé li am solo mooy gelawaar dugg ci xol yi li am solo mooy gelawaar dugg ci biir réew mi li am solo mooy ndawi Sénégal identifié wu à notre parti est-ce que ministère de l'intérieur empêché nañu def suñuy activité sénégalais yi xam nañ gelawaar askan wi xam nañ gelawaar jeunesse bi xam nañ gelawaar Babacar mais Babacar man ni ngay waxe ba léegi mun ma ko comprendre c'est-à-dire boo nee récépissé benn kayit la booy def ci poche mais récépissé boobu boo ko amul mais doo officiel waaw dama la bëgg nii ne ñaata parti ñoo mais récépissé boobu boo ko amul mënoo légal comme parti mënoo légitime. no non légitimité ak légalité. non non d' accord d' mais munoo légal. waaw mënoo mënoo mënoo légal. waaw moo tax ma ni la première bataay bi ëpp solo ndax am na ay parti yu am récépissé kenn xamu leen am na ay parti yu am récépissé ci boppam daanaka récépissé bi dañ ko def ci poste donc donc fexe parti bi am taxawaay ci dëkk bi fexe nit ñi xam ko fexe parti bi am projet fexe parti bi dugg ci xol yi fexe parti bi am identité. fexe parti bi pro porter projet pour le Sénégal loolu ëpp solo ñu ngi koy réussir maintenant récépissé bi ci nii wala ci dinañ ci jot incha allah. Ah, mais man jàpp naa ni man man li nga li nga wax nii défiance la te gaw ma. non défié wu ma non si défiance mënul passer le ministre l'intérieur nga nga baal ma Babacar c'est-à-dire en tant que républicain sax c'est-à-dire du du li ah, li ngay wax ni man pour man c'est pas nga baal ma mais du respect du cër parce que su fekkente ni yow da nga créer benn parti politique ci république. ministère de l'intérieur bi nga xam ni moom moo am charge jox la récépissé bi ne la kat jëwriñ ñun lii ànduñu ci parce que lii ak lii ak lii wax moo ci am mais li gën a rafet mooy nga d'accord ci loolu nga teggi loolu nga teg leneen. mais wax ma benn parti politique bu am dàkkantal bu mel noonu. fii ci Sénégal amul fii. Pape man dong maa xam lan mooy république. non Babacar ministre de l'intérieur keroog bi muy ñëw Thiès di installer le nouveau gouverneur man xam naa lan mooy république en tant que maire de Thiès jàpp ma ni daf xañ gelawaar de déedéet dañu dem déplacé wu. yiir ko ci boppam ministre de l'intérieur xam nga moom bi mu bi ma gisee xam nga lu ma wax gelawaar bi mu ne tëll yam ci man bi ma nuyoo daf ma ni gelawaar dem toogaat bi mu ñëwee mu ni ma gelawaar c'est le nouveau nom que je te bon daf doon tooñ tout ceci jàpp naa ne aussi débat bi évolué na xam na ni moom ca jàpp naa ni dafa juumoon jàpp naa ne Alioune Tine da jàpp ni dafa juum waaye de bonne fois nag de bon fois de bonne foi parce que ay universitaires tontu nañ ko bind ci ay université def nañ ci un colloque à l'université Cheikh Anta Diop xam nga une réponse scientifique ay ay avec histoire générale bi Sénégal le professeur Mamadou Fall le professeur Rokhaya Fall donc euh, ay professeur Bouba Diop donc ay professeur Babacar mbay Diop donc euh, euh, donc euh, donc le professeur Sène bu IFAN ay boroomi xam-xam bind ci addu ci aujourd'hui la réponse scientifique est Alioune mhm. donc reprendre na dossier bi man jàpp naa ni balaa yàgg FDS dina jot récépissé d'accord alors Babacar yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi xëccoo loo xam ne da nga ne yaa ko moom a Thiès par exemple soo nee yaa ko moom mooy ville de Thiès moo ko moom te yow yaay maire bi <clears throat> muy